Mm-hmm. Mm-hmm. Mm-hmm. d' accord d' accord bon Serigne bon euh, dinaa rebondir tuuti si euh, Birima par rapport ak euh, prix bi mu wax ne parfois day yëg ci période comité ak fête man li may wax mooy prix bu boobu change bu muy change di gën bu muy jóg cent franc la jóge cent franc maintenant peut-être lay tax muy jóg bay bay dépassé ay mille francs de plus deux mille francs de plus ñu nekk ci diggante bi ñu koy jëlee ci euh, Bourg-Champ ci ferme ba euh, di ko jaayaat peut parfois ñoom ñoo ci teg li nga xam ne mooy tax ginaar bi gën a mën a cher. Hmm. mais éleveurs yi euh, depuis 2005 ñoo ngi dox si ñoo ngi def seen kéem lay kàttan pour mën a produire ay ginaar yoo xam ne yu compétitif la. maintenant li am li am solo loo xam ne lu jar a souligner la mooy les acteurs de la filière avicole ñoo ngi def seen kéem lay kàttan pour quand même. et euh, autosuffisance en viande blanche c'est une réalité aujourd'hui avec fierté te acteurs yi mun nañ ne autosuffisance en viande blanche c'est une réalité mais maintenant naka la ñu mën a def ba compétitivité boobu mën a gën a am loolu ñoo ngi ciy dox et je pense que le rôle de l'État aujourd'hui mooy par exemple euh, des zones euh, euh avicoles dédiées mm-hmm. yoo xam ne dafay ànd ak ay euh, ay yoo xam ne daf ñuy permettre ñu gën a mën a compétitif lu ci mel ne euh, l'impôt sur euh, revenu euh, charge sociale yi exonération des taxes douanières mm-hmm. exonération ci la des taxes douanières ci ban mooy équipement yu ñu dugal pour mën a produire pourtant ils le font ils le font boo boo demee ZES les zones économiques spéciales da lañ koy defal mm-hmm. mais ñun defaluñu ko les équipements équipement tout